بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدين المبين وأنار لنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة والنبراس للعالمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن صار على نهجهم واقتضى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وكي محاربة الشرك wal من الدين ngi leen di تبارك وتعالى leen التوفيق alhamdulillah ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli si yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay ñooñam ak ay saxaabaam ak képp ku jaar seen yoon ila yawmi diin ginnaaw loolu alhamdulilah mbokk yi ni nga xam ne ñi ngi si dawra bi incha allah rabbi tey mooy nekk ñeenteelu bis bi ñu fas yéene dalal suñu cheikh al oustaz Moussa Cissé xafidahullah ci téere bu am solo bi di xuturatul ibtidah wa sumul bidaai bu fadilat cheikh Mouhamad ibn Saïd al Rasdan xafidahullah دي دلسو ني شيخ ديكو فلي يتفضل مشكورا ماجورا باسم الله سبحانه وتعالى دي نيان بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق ني ام ديغ اك توك ليب لو خامتني سيني ديغ نانكو في ني مانكو جارينو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نيغي سانت يالا تبارك وتعالى ديكو ديمانديكو ديكو نان مو جيغل ني سوني بكار موسل ني سي سوني ايو بكان اك سوني نياو تي في ديف دي جولي سي سونو سانغو بو تيد با سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم دي نوي وا دار جي محاربه الشرك والبدع di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, ñu ngi nuy mbokk yépp rawati nak nga xam mo idara jalsa bi muy serigne damlo xamna sant bi nak xawna doy war waye ñu ngi nuy mbokk yépp ak mbokk yi nga ñoo organiser dawra bu am solo bi waye ak masaayax yi nga xam participer nañ ci di ñaan li ñaan borom bi tabaaraku wa taala mu nangul ñëpp Euh, ñun comme niñ ko waxee ci téere boobu am solo boobu nga xam ne mooy xuturatul ibtidaa wa sumul bidaa te mooy danger sos ci diine ak bonuk bokkaale di ko bind muy euh, cheikh mohamad ibnu said raslan muy téere bu am solo waaye ñun cër bi nga xam ne moom lañ ci cërale mooy fa muy leerale ci biir téere ba di wane ne bidaa lépp ak doloole la waaw bidan lépp cànkute la ak zeyx ak jeng ak jadd mu doon leeral nag ay anam yi wane bonuk bidan ak doon gim doonee lu ak cànkute ak doon gim doon lu jadd euh, cheikh alfa defe naa moo jëloon genn wàll gi kon ñu ñëw continue rek moom fu mu yemoon kon ñu ngi war a commencé ci alwajhu sadis anna saaxiba albidaati alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yowmi alqiyaama kon alwajhu saadis juróom anam giy wane bonuk bidaa ak danger bu mu dange mooy anna saaxiba albidaati alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yowmi alqiyaama borom bidaa dafay gàddu bàkkaaram waaye gàdduwaale bàkkaaru képp ku ko ca topp képp ku jëfee bidaa boobu ba yawmal xiyaam loolu bokk na ci li gën a wane bonuk bidaa ndax bàkkaar lu muy bon bon bu fekkee ne nit ki da koo def mu yem ci moom dong moo tane mu fexe ba ñeneen def ko ngir ci sababam su ko defee boobaa bàkkaar ba la mu yenu day gën a day gën a bari moo tax ñenn ci salaf daal nañu wax ne lu ba bul def bakar waye so munul ñak def bakar bul ko xemem lo kenen borom bida nak mom bida daf lu yem ci mom ndax daf koy sos def ko ba pare waye xër ci ñenen ñenen diko def léegi nak kep ku ko def fi ba yawmal qiyamah day continuer di am ci bakar bi qala taala borom bi neena li yahmilu awzarahum yawmal qiyamah wa min awsaari alladina yudilluunahum bi ilm borom bi nee na ngir ñu yenu seen bàkkaar ya ba mu mat sëkk ëllëg yowmal xiyaam waaye yenu waale bàkkaaru ñu ñu réeraloon te teguñ ko ci xam-xam kon dañu yenu seeni bàkkaar waaye yenu waale bàkkaaru ñu ñu réeraloon wa qaala sallallahu alayhi wa sallam wa man sanna fi l islaami sunnatan sayyi'a kaana alayhi wa wisru man amila biha min baadihi min gayri an yanqusa min awzaarihim shay yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ku sos ci lislaam ku def ci lislaam sunna bu won bi maanaa yoon wu bon ku def jëf ju won nee na da am bakaar yow mi ko def waaye ak bàkkaaru képp ku jëfee loola képp ku jëfee loola al imaam al qurtubi ci al mufhim bi koy sara mu ne képp ku jëf man faala fi'lan qabihan ku jëf-jëf ju bon ci biir lislaam kooku dafay am bàkkaar waaye képp ku ko ci topp dafay am bàkkaar te itam nag duñu ñu wàññi ca bàkkaar bàkkaaru gaaye dara moom bàkkaaram danañ ko jox bàkkaaram ak ña ko ci topp ñëpp te ñee duñ wàññi ci seen bàkkaar dara kon loolu di wane bonuk bonuk bidaa moo tax bida kon lu mat a moytu la nit di ko moytu fu mu mën a nekk waaw mu ne wala maakaanal ba mu nekkee al bidaatu bidaa sababan li imaatati sunnatin tuqaabiluha nekk sabab ci rey sunna bu mu jàkkaar lool xam nga bidaa fu bidaa amee rek ñaare rey nañ fa sunna bidaa fu mu amee rek ñaare rey nañ fa rey nañ fa sunna euh, bu ñu la doon jox misaal yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale ay azkar mu am yoo xam ne daf ko tënk ci ay jamono wala mu tënk ko ci ab lim mu am yoo xam ne da koo booyal yi mu tënk lu melni yi ngay wax suba ak yi ngay wax ngoon yi ngay wax ginnaaw julli yooyu nga xam da ko tënk yenn yi mu tënk ko ci ab limitam léegi borom bi daa dafay ñëw moom mu créer yeneen léegi moom di def suba ngoon léegi bi mu créer ay adkaaram wala mu créer lu muy tuddee ay wird di def suba ngoon jamono boobu place bi mu ko doon def mooy la fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale lay bàyyi indi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo bàyyilul espace maanaam daf ñoo bàyyilul espace boo xam ne ñun mën nañ fa dem di fa sos dafa jàngale ba mu leer ba mu mat moo tax Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu doon wax ne ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum maanaam topp leen waaye bu leen sos ndax jox nañ leen lu doy fegal nañ leen coono sos kon dañ laa jàngal ba mu mat sëkk jox la lu leer jox la lu doy léegi nag lu doy su fekkee ne danga bëgg ñëw indi leneen foofu dangay ngay teggi teg waaw ab tabax buñ ko tabaxee ba mat ba mat sëkk nga bëgg ñëw ci biir tabax bi nga dooliwaat ci leneen da ngay mujj génnee benn pour dugalaat beneen bidaa noonu la mel mooy bidaa saa bu ñëwee rek dafay rey sunna bu mu fa fekkoon moo tax la ibn Abbas radiallahu anhu anhuma doon wax ne amul menn at muy ñëw lu dul ne nit ñi dinañu sos ay bidaa di rey ay sunna mu ne su ko defee biddaa yi dund sunna yee dee te biddaa yooyu bu ñu dundee ba yàgg sunna yee dañuy dee ba nit ñi sax léegi yow boo indee sunna boobu yow mi indi sunna ba la yow la jàpp ne yow yaa indi lu bees parce que rek biddaa ba rey na sunna kon biddaa bi nga xamee dafa nekk sabab di rey sunna bu mu jàkkaarloo loolu tax fa alal mubtadia ismu zalika aydan moo tax bidaakat bi aji def biddaa ji dafay yore bàkkaaru ña ko topp ca loola fa huwa ismun mudaaf mu nekk bàkkaar bu ñu ful bu ñu multiple zaidun ala ismil ibtidaa boo xam ne dafay dolleeku ca bàkkaaru bidaa ba bàkkaaru sos ba ci boppam loolu da cay yokk mu ne alwajhu saabia juróom-ñaareelu anam bi ci liy wane bonuk bidaa ak danger mooy anna saahibal bidaati laa yazdaadu min allahi illa bu'dan borom bidaa du dolleeku ci yàlla lu dul ak sori maanaam lu mu gën a góor-góorlu ci bidaa loola du ko yokk lu dul muy gën a sori yàlla ndax borom bi tabaaraka wa taala dafa xalla aw yoon woo xam ne ku bëgg yegg ci ngërëmam ci yoon woo ngay jaar wa anna haada siraati mustaqiman fattabiuhu lii mooy sama yoon wu jub bi topp leen ko wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabilihi bu leen topp ñell yi ndax bu ngeen ko toppee da leen di teqale ngeen bàyyi yoonu yoonu yàlla yi léegi nag bu fekkee danga ngaa bàyyi yoon wi noo gën a avancé di gën a sori di gën a sori yoon wi moo tax bidaa lu ca nit ki gën a góorgóorlu lu mu gën a góorgóorlu ci bidaa rek muy gën a sori yàlla waaw buñ la doon jox misaal benn waaye day tukki jëm ci dëkk sàngam nga bayee ko dëkk bu mel ni Dakar jëm Kaolack yoonu kawlak boo génnee dakaar boo génnee jëm ñaajo yoonu Kaolack nga xam ko nit ki xam ko mu jël yoon boobu jëm Kaolack bu fekkee nit ki dafa bàyyi yoonu Kaolack bi jël exemple beneen yoon yoonu Ndar wala yu mel noonu gis nga nu mu gën a daw nu mu gën a daw di sori di gën a sori Kaolack kon bidaa moom nit ka ca nuur lum ca gën a nuur ak lu bidaa ya gën a bëri muy gën a muy gën a sori muy gën a sori yàlla نانا ففي الحديث نيوني تي حديث المتفق على صحته حديث بو خامني متفق عليه لا في شان الخوارج تي حديث بو خام دي واخ تي ميرو خوارجي يونت بي صلى الله عليه وسلم من تحقرون صلاتكم مع صلاتهم دا نين دي خيب سين جولي ين صحابه تي كانم سين جولي نيو خوارجي وصيامكم مع صيامهم دا نين دي خيب سين كوري تي سين كانم كور واي يمرقون من الدين دانيي ген ci diine kama mu saxmu min ramiya comme ni fett di génnee ci ndey ji ci xale ji comme ni ngay sànnee balu fett mu ne feset maanaam ne rochette génn noonu dem buñ ko sànnee ni muy mel noonu di génn di dem ñoom noonu la ñuy génnee ci diine ñoom ñi nga xam ne ñooy xawaari ji nee na kon bayee na awalan ittihaadahum nee na xadis bi ci première dafa leeral seenu góor góorlu kon nee na bu ngeen gisee seen julli la ngeen di xeeb yéen seen julli dangeen di xeeb seen koor kon ñu ngi def effort bu baax waaye dañ koo tegul ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi jàngalee moo tax su ma bayee na axiran mu leeral ca mujj ga bu'dahum anillahi taala sori guñ sori yàlla kon loola ñuy def ci ay jullee ki woor loola ñuy def ci ay xeeti bi daal lu muy bari bëri bëri daf leenaa gën a soril yàlla dañuy faral di misaal ne toujours bidaa dafa mel ni faux billet rek faux xam nga day nidoo ak billet bu baax bi waaye gis nga faux billet lu ci nit ki gën a bërile buñ ko jàppee kaam gën a kaam kaam gën a garaaw maanaam ki ñu fekkoon ak billet cinq cent bu faux billet kooku moo ëpp chance ku ñu fekk million faux kooku moo ëpp chance ba tey ku ñu fekk un milliard faux billet kon ñu la fekk ak faux mu gën a bëri rek nga gën a ñàkk chance waaye nu mu gën a tuuti peut-être amaana yow yaay tane donte la yëpp faux billet la bu ci nekk daan mën la la jaa waaye loo ci gën a bërile mu gën a mu gën a mu gën a bon kon bidaa lu ca nit ki gën a góorgóorlu day gën a sori yàlla moo tax abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu doon wax ne al iqtisaadu fi sunna xayrun min al ijtihaadi fil bidaa mooy nga nga digg doomu ci sunna moo gën ngay góorgóorlu ci bidaa li ngay def mu dëppoo ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale donte le bëriwul nga sax ci moo gën ngay xëy suba ba ngoon di góorgóorlu ci bidaa kon bidaa moom loo ci gën a góorgóorlu mu lay gën a mu lay gën a soril yàlla loolu moo tax nit ki war naa góorgóorlu ba toujours buy jaamu yàlla ak di góorgóorlu mu laaj boppam ñaari question yi lii may def ndax maa ngi koy def mu sell te yàlla kese moo tax ma koy def waaye ndax maa ngi koy defee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari baat yooyu lim koy jàngal mooy yàlla dongu laay jaamu kon su ma koy jàmm damay sellal jaamu gi waaye ni ma koy jaamu yonent bi sallallahu alayhi koy jàngal al anam gi ci liy wane banug bidaa mooy anna saahibal bidaati laa yuridul xawda wala yaxda bi shafaati nabii sallallahu alayhi mooy borom bidaa du root ci déggu yonent bi alayhi salaatu wasalaam deg bobu nga xamne ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee ku ca rot ku ca nan du mar ku ca nan du marati ba faw borom bi da dañ koy xign mu nan fofu waye tam du cëroo ci ramm yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fi sahihayn min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awalu man yuksa yowma alqiyaama ibrahim ñu ne ci hadith bo xamne mu ngi ci buxaari muslim abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nettali ko mu ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallama nee ne ki ñu njëkk woddu ëllëg yowmal qiyaama mooy ibrahim ëllëg yowmal qiyaama nit ñi dañ bu ñu dekkee dañuy dekki rafle oraatan xurla dañuy rafle ba pare sax doon ay at waaye nag bu ñu raflee def yaramu neen kañ cay njëkk woddu kay njëkk a sol yére kay njëkk a woddu mooy yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu wasalaam mu ne wa innahu sa yu'taa bi rijaali min ummati fa yu'xadu bihim daata shimaal fa aqulu ashaabi fa yuqaalu innahum lam yazaalu murtaddiina ala aqaabihim mundu faaraqtahum fa aqulu kama qaala al abdu saalih wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawafaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tuadibhum fa innahum ibaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim yonent bi alayhi salaatu ne danañu indi aw gaay ci sama xeet nee na ñu indee leen côté càmmooñ bi mooy côté safara maanaam jëmee leen côté safara nee na fa aqulu asxaab yi ma ne ah ñii samay gaay lañ de ñii samay xeet lañ bokk nee ñu ne ma ñoom de dañuñ di murtad di delu ci sen ginaaw ginaaw dippi nga tekkaliko ak ñom neena buñ ma waxee loolu nag ma wax comme la jamm bu baax bo waxon te mooy yonentu yàlla aisha alayhi salatu wassalam lan la waxon moy yalla di wax ne ko ndax yow ya wax nit ñu jàppee yow ak sa yaay yalla aisha bu muy tontu bokku na ci lam tontu moy wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim man de ah don na len seere de bama fa nekké bama ma nekk ci seen biir daal moom maa nga doon seede la ñuy def fala maa tawa fayte nii ba ma faatee nag ah kunta anta raqiba alayhim yow yàlla yow yaa aji fuglu ci ñoom yow rek yaa fate di leen contrôler ma nekkatuma fa ndax wa anta ala kulli shay'in shahid ndax yow yàlla yow yaa teewee lépp in tuazibhum fa innahum ibaduk soo leen bugalee say jaam lañ wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim boo leen jéggalee yow dee aji tedd nga aji sañ nga aji xereñ nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis mos naa julli di jàng aaya ji boole ko jooy metti waa ji nett li nee na guddi gi ba fajar gi mu ngi répété aaya ji kon nee na danañ indi ay nit yowmal xiyaama ñu jëmee leen côté càmmooñ bi côté safara ma ne ah ñii samay gaay la ma ah ñi kat dañu doon murtat di dellu ginnaaw dippi nga teqali kook ñoom nee na ma wax la jàmm bu baax ba waxoon ne ah yàlla ba ma fay nekk dee moom maa ngi leen doon seede ba ma faatoo nag yow yàlla yaa fa des ak ñoom di leen di leen contrôler ndax yow yaa teewee lép a ah, say jaam nañ nag boo leen bugalee say jaam nañ boo leen jéggalee yow yaa sañ mu ne wa nekk na ci xadis bi ne annahu lam yadkur lahum shafaata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci xadis bi ne tuddul ramu yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye wa yadharu min awalil hadith day feeñ ci njëlbeenu xadis bi ne ana dhalika al irtidaada lam yakun irtidaada kufrin feeñ na ci xadis bi ne murtad boobu mu wax ne moom la ñu def nekkul murtadu kéeféer nekkul ne dañoo tubbi génn ci lislaam carrément lu tax li xaw li ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa innahu sa bi rijaali min ummati danañu indi aw ci sama xeet mu ne walaw kaanu murtadina anil islam lama nusibu ila ummatihi bu fekkoon ne ñoom dañoo murtadoon génn lislaam tubbi kon duñ leen askanee ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xeetu bi nga xam ne ñoo ko wuyu wali annahu sallallahu alayhi wasallam ata bil aaya ba tey bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàng ci ñoom aaya ba wa fiha ta aaya bi lan lay wax bokk na ci li aaya bi wax mooy wa in taghfir lahum boo leen jéggalee fa innaka antal azizul hakim yow aji sañ nga aji tedd nga aji xarañ nga mu ne law alima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam annahum xaarijuna an islam jumlatan lama zakaraha lama zakaraha mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne xam ne ne ñoom dañoo génnoon ci lislaam léppam tubbi carrément don ay yéefeer kon du tudd aaya ji lu tax li anna man maata alal kufri laa xufraana lahu albat ndax ku faatu ci kéeféer kooku duñ ko jéggal mukk ko ku faatu ci kéeféer moom kooku du am jéggalu yàlla wa innama yurjal xufraanu liman lam yuxrijuhu amaluhu an il islam ki nga xam ne kay mooy yaakaar ak njéggal mooy koo xam ne jëfam génnewu ko lislaam ndax borom bi nee na li xawli taala inna allaha la yaxfiru an yusraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha borom bi nee yàlla de du jéggal koo xam ne daf koy bokkaale bi max maanaam ku faatuwaale bokkaale yóbbuwaale ko kooku yàlla ne du ko jéggal waaye nag dana jéggal du yées bokkaale ci ku ko ku kon loolu mooy wara a ne kon ñii la def nekkul ne dañoo tubb génn ci lislaam waaye dañoo sos ay mbir ci biir diini ji tàbbi ci ay mbir yuñ leen tere woon kon gis nga bidaa dafay tere nit ki mu naan ci déegu yonent bi alayhi salaatu wasalaam déeg boobu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ca naan dootoo marati ba faw alwajhu taasi mooy anna saahibal bidaa yunzau minhu tawfiq wa yukilu ila nafsihi mooy borom bi bidaa dañ koy dindi ci moom ak tawfiq tawfiq bi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moom moo koy defal ku ko soob ci ay jaamam def ko ci ak mànduum ak ngëneelam mu defal la tawfiq nga mën a jaar ci yoon wi tawfiq boobu yàlla di la defal nga mën a tegu ci siraatal mustaqim tegu ci alkitaabu wa sunna say jëf di nekk jëf yu jub borom bidaa tawfiq boobu dañ ko koy dindil wayookilu ilaa nafsi dañ koy bàyyi ak boppam ndax moom dafa ñëw bàyyi yoon wi ko yàlla tëralal ba pare indi xelaati boppam def ko mu nekk yoonam waaw ndax moom dafa ñëw jàpp ne li yàlla indi woon matu dafa manqué waaw li el imaamu Shaatibi di wax ne bidaa képp ku koy def rek même bu ko waxul ci làmmiñu ma bu ko waxul ci làmmiñam mu leer itam lisaanu xaalam wax na ko mooy sariya matul sariya matul ndax bu fekkoon ne gëm na ne sharia man na kon du indi bida ndax lu mar soxlawul lu ñu yokk beneen bi mooy nee na moom imam shaati bi mu ne képp kuy def bida rek dafa dafa dëngoo mu aanidun li sharia dafa dëngoo ak sharia dafa noonoo ak sharia waaw dafa jàpp ne sharia dafa manqué moom mu ñëw pour pour dabaatal ko loolu la jàpp même bu ko waxul ci meñam jëf ji loolu lay firi jëf ji loolu lay firi loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala lay dindi ci moom tawfiq boobu mu nit ki di am bu toppee alquran sunna yàlla da koy dindi ci moom bàyyee ko boppam mu ne fa inna laa taala baata ilayna muhammadan ndax borom bi tabaraka wa taala daa yónni ci ñun yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam mu nekk rahmatan lil alamin mu nekk yërmaande ci mbindeef yëpp xasba ma axbara fi kitaab yi kem ni ñu ko sunu borom xibaar yi ci téere bi yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa ñëw nekk yërmaande waqad kunna qabla tuluwaan dalika nuur laa nahtadi sabilan te lu jiitu fenk googu an nuurul leer googu muy leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer gi mu indi lu jiitu muy fenk ñun xamuñu woon wan yoon la ñuy jaar lan la yàlla wax laqad manna allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yadlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubin la yàlla wax borom bi nee yàlla day xéewalal na ñu gëm yàlla ba mu yebalee ci ñoom yonentu yonentu boo xam ne ci seen ci ñoom la bokk nit la ni ñoom mu leen di jàngal aaya yàlla yi di leen jàngal téere bi di leen yar di leen taskiya te lu jiitu nag yonentu boobu di ñëw dañoo nekkoon ci riir bu bir kon lu jiitu yonentu bi sallallahu di ñëw lu jiitu leer googu di ñëw waaw xad jaakum minallaahi nuurun wa kitaabun mubiin kon nuur boobu lu jiitu muy ñëw xamuñu woon ban yoon lañ war a jaar xamuñu woon fu ñu war a jaar wala naarifu min masaalihina dunyawiya atta suñuy intérêt yi àdduna suñu njëriñu àdduna sax xamuñ ci woon illaa xalilan lu lu tuuti lu tuuti lañ ci xamoon ndax nit ki bu xamul diine daanaka lu bëri day tërëñ tërëñi day làmbatu rek di dem léegi-léegi sax mën naa topp jàpp ne lii mooy njëriñam sax fekk fekk du njëriñam kon xamuñ ci woon lu dul lu tuuti ala xayri kamaalin nekkuñ woon ci ak mat wala min masaalixina al uxrawiya qalilan wala kasiran bu dee suñ njëriñu alaxira moom xamuñ ci woon lu tuuti xamuñ ci lu bëri xamuñ ci woon dara balkaana kullu ahadin yarkabu hawaahu ku nekk daa toppoon bànnee xam rek ku nekk daa toppoon bànnee xam rek comme ni ñu ko yàlla waxee waaw وإن كانوا من قبل la fi dalaal mubin ngeen nekkoon ci réer gu leer réer gu biir ku nekk topp bànneexam xataa baatallahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla subhanahu wa taala yónni yónnitu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw nekk yërmande ñëw nekk xéewal ñëw indi leer li zawaali rey wal wal iltibaas mu ñëw pour dindi sikk sàkk bi nekkoon ci nit ki ak lënt yi nekkoon ci moom pour taalal ko làmp bu leer di len génnee ci lëndëm di len duggal ci al khilaf al waqi' bayna nas mu ñew pour yëgati wuté bi dox ci digënté nit ñi pour nit ñëpp and booloo ci wenn yoon te mooy siratullahi almustaqim yoonu yalla wu jubbi yi ñëpp nekk ci yoon woowu bu ko defee ñëpp and di dox wuté gogu mu génn nga xam ne bu njëkk ñee ñu ngi doon jaamu bant ñee di jaamu malaak ñee di jaamu ay nit ñi nekk ci kenn ku nekk ci acte la nga nekk waaye gis nga l'islam bi mu ñëwee ñu ñëpp la boole dajale leen ci jenn diine moo tax mu ne wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida wa anna rabbukum wa ana rabbukum fattaqun ak wa ana rabbukum fa'budun xeet wi mooy wenn xeet man maay seen borom na ngeen ma jaamu na ngeen ma ragal mu ne kon fa isa taraka al mubtadi'u bidaakar bi su bàyyee haadihi lxibaati alazima may yu màgg yi may yu màgg yi wala ataayal jazila ak may yu rëy yi yooyu nga xam ne moom la yàlla indil mu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw di ñu orienté teg ñu ci yoon wi nga xam ne loola mu ñuy xamal yoon woowu yàlla indil ñu mënuñ koy xamee ci sunu xelum bopp sunu góorgóorlu taxul ñu xam ko faw rek ñu topp ko door koy mën a xam nit ki nag su bàyyee loola wa axasa mu commencé fi istislaahi nafsihi pour yéwénal boppam moom aw duniyaahu bi nafsihi wala sax muy bëgg yéwénal arunaam moom ci woppam nga xam ne bi maa lam yajaal sarhu alayhi dalilan defu sariam muy yoonam mu koy tegtal déedéet moom daal dafa ñëw jël yëf yi ko boppam jàpp ne moom moom moo ko mën a jàpp ne moom soxlawul yonent bi sallallahu alayhi wa wala mën naa dund diineem saamu dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa wala man na indi jaamu yalla go xamne duko delo ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci xelum bopam lay delu ak ci ay mbiri bopam koku fa kayfa lahu bil azma naka lay amé ak muccu naka lay amé ak muccu wa dukhula tahta hadhihi rahman naka la meuna duggé ci yermande joju parce que yermande joju ki ci dugg moy kan moy kiko top motax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ana rahmatul muhdat man yermande la buñ len may wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dañ la yoni ngir nga nek yermande ci fi kon yermande joju moy kon dang koy top wa in tahtadu su ngeen ko topé e rek orienté wu ko djub légui nak suko fa nit ki baye japp ne kon mom du ne day jël sharia waye mom dal mom man na demal bopom. koku day muju eh, sanku te du meuna dugg mukk ci biir yermande joju وهو قد حل يده من حبل العزمة موم تي بوبام مو فيتش لخوم تي بوبو بوم موتشي بوب غوغا خامني موم لا يالا واخني واعتصموا بحبل الله جميعا بوم غوغو موم دا تا فيتشيكو موم генيتي الى تدبير نفسه بور موم ديمال بوبام ني موم مانا دوخال بوبام فهو حقيق بالبعد عن الرحمه كون تي دغ دغ دا فاي سوري يرماندي دا فاي سوري يرماندي واو باي خول ا آه، نيغا خامني اي سامو كات لاني ñi nga xamne ay sammu kat lañ nga xamne ne dañoo yor ak jur jur gogo ñu yor di ko bu ñu dañuy xol fu am ñax wala fo xam dal jur gu bu fa demee dana bax ci mom waye bu amé ben ci jur gi mu féeteerlu bàyyi fa jur gi dem dem fu ko neex moy tur moy dajé gaynde ya ak tilé ya ñu añee ko wa fa innama yaakulu adh-dhi'bu min al ghanami al qasiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tilli gi gàtt ba muy lekk mooy gàtt ba beru kon ñëwal ci biir yërmande jooju ñëwal ci ron yërmande jooju qaala allahu taala borom bi tabaraka wa taala nee na wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu nee na mooy leen ci buumu yàlla gi yéen ñëpp te bu leen teqalikoo mooy leen ci buumu yàlla gi yéen ñëpp te bu leen teqalikoo baada qawlihi ginnaaw bu mu waxee ne ittaqullaha xaqa tuqaati loolu njëkk wax ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ko bu leen faat lu dul ngeen doon ñu jébbalul seen borom doon ay julit mu ne ngooy leen ci buumu yàlla gi yéen ñëpp te bu leen texalikoo kon fa ashara mu yëg ne anal ixtisaama bi xablillahi huwa taqwallahi xaqan ngooy ci buumu yàlla gi mooy ragal yàlla dëgg xaqa tuqaati yi boobu muy wax moom mooy ngooy ci buumu yàlla gi mooy ci buumu yàlla gi buumu yàlla gi nag mooy islaam mooy alquran mooy tawxid wa anama siwa dalika tafriqatun lépp loo xam ne du buumu yàlla googu day teqale day te ki nga xam ne day def bidaa moom daf fi bàyyi buum googu dem indi yu mbiri mbiri boppam moo tax moo tax bu njëkk dañ daan tuddee sax euh, ahlul bidaa ñu di ahlul ahwaa wal furqa nga xam ne dañuy tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñi nga xam ne ñoom dañuy dañuy dañuy ànd parce que dañoo bokk ànd ngoy ci buum gi moo tax dañuy ànd foofu parce que ñun ñëpp buñ bokkee ci genn buum gu ñu ngoy rek dañuy ànd bu fekkee kenn ku nekk dafay jël sa xel wala sa góorgóorlu bopp jiital ko teqali ko far force moo tax gis nga tey boo xoolee jullit ñi li ñuy dund euh, kuréel kuréel yu bari yi yi nga xam ne ñoo ko bokk da gis ni maam yi nga xam ne lu am dalil la ci sharia da gis ne buñ koy def. dañ koy dañ koy dañ koy bokk maanaam tey yow mën nga ñëw dugg ci jàkk jàkk ji ñëpp ngi ci biir amaana ki am na kuy askanoo ci tariixa sàngam am kuy askanoo ci mbo mbooloo sàngam waaye bu tusubaar jotee kenn ci ñoom mën naa jiite ñëpp julli ci ginnaawam waaye bu ñu sëlmalee ci kanam tuuti rek am na mbooloo mu nekk fa def seen biir ñoom doo nga fay toog keneen ku bokkul ci ñoom du fa toog am na meneen mbooloo muy def leneen ku bokkul ci ñoom du fa toog nga xam ne bu baax ku nekk ak seen mbiri bopp gis nga lola seen mbiri bopp la ñoom lola seen mbiri bopp la kon borom bi nee nañu wala tafaraxu bu leen teqalikoo kon dañuy ngooy ci buum gi mooy tax duñ mën a teqalikoo waaye suñ ngooyul ci buum gi ku nekk indi say mbiri bopp faw dañuy teqalikoo nag moo tax mu ne wal furqatu axasu awsaafil mubtadia teqalikoo mooy li gën a bon li gën a bon ci melokaanu defkatu bidaa def ko tu bidaa moom toujours dafay teqali ko waaw parce que dafa indi loo xam ne bokkul ci sharia su ko defee loolu nag moom moo koy def moom ak ñi ko ci ànd keneen indi leneen am ñu ko am ñoom àndal keneen indi leneen am ñoom àndal luy muy mujj mooy wala takunanna minal mushrikin minal lazina farraqu diinahum wa kaanu shi'an bu leen mel ni bokkaalekat yi ñu def seen diina ay pàcc ay kuréel kuréel bu nekk di bëggee ci lam nekk waaw bu ko defee ñu ne ñii ñooy waa tariixa diw gis nga ñooñu am seeni ay awraat am seen mbiri boobu ñoo xam ne ña askanoo ci tarixa boobu dong ñeneen am la askanoo ci tarixa boobu la concerné ñeneen am teqali ko far force même buñ jàppee ne dañoo bëgg a dañuy teqali ko parce que dañoo créer ay mbir yoo xam ne faw dañuy teqali ko li annahu ndax xaraja an xukumilaa dafa génn àtte yàlla bi wa bàyyi na sawaadal azam mu teqali ko ak mbooloo mu màgg ma min ahlil islam kon bidaa moom gis nga faw day teqale nit ñi bidaa faaw day teqale nit ñi al wajhu ashir mooy anna saaxiba al bidaati laysa lahu tawba fukkeelu anam bi wane bonuk bidaa mooy borom bidaa ak tuub ñeelu ko lima fi xadisi anas ngir li ñëw ci xadisu anas xam ne rasulullah juree ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna laa xajaba tawbata an kulli saaxibi bidaatin da fay yir ak tuub ci bepp borom bidaa borom bidaa dafa japp ni ci lu bax la nek borom bidaa motax bo sufyan athawri don wax ne bida mo gënal iblis moy yalla manam def bakar yi nga xamne ñepp ñëpp li bakar la lola euh def bidaa mo gënal iblis nit ki def yooya ndax nit ni ko yàlla bindee buy def loolu xam na ne lii baaxut léegi léeg sax damiram daf koy yedd kon mën na ca génne toujours waaye kii def biddaa moom dafa jàpp ne li muy def lu baax la léegi nag ki jàpp ne muy def lu baax la kooku moom ñaare du tuub bal yow boo ñëwoon di ko jéem a tuubloo sax daf lay mere ndax day jàpp ne yow danga nga koo bëgg génnee ci lu baax da nga koo ci lu baax moo tax boo seetloo dangay gis ne ñi nekk ci biti lislaam di dugg ci lislaam mooy gën a bëri ñu nekk ci biddaa génn ci biddaa dem ci sunna parce que ñaari ñi nekk ci biddaa dañoo jàpp ne ñoom ci lu baax lañ nekk ki jàpp ne ci lu baax la nekk nag kooku moom ñaari da cay da cay da cay da cay nuur illaa man rahima rabb mu ne wa sababu bu'di ani tawba lii sabab mu sori tuub mooy ana duxula taxta takaalifi sharia saabun ala nafsi dugg ci roon santaane sharia yi sharia santaane yi mu santane togg yi mu togg nit ñi jëf loolu nga nekk ci biir dugg ci di ko pratiquer lu jafe la ci bakkan lu tax li annahu amrun muxaalifun lil hawa ndax mbir la mu wuteeg bànneexu bakkan te xam nga bakkan daa bëgg daa bëgg a topp bànneex maanaam yi yàlla santaane jafewul de waaye dafay jafe ci bakkan parce que dafa juyoog bànneexu bakkan moo tax xam nga tey nit ki góorgóorlu di jàng alquran góorgóorlu waxtu julli wu jot mu julli góor góorlu di col-colug lislaam góorgóorlu eh, di respecte julli yi di jóg dagg ay nelawam di julli loolu moo gën a yomb fuuf nit ki nekk ci ay caaxaan ak mbumbaay am na koo xam ne mun naa am guddi wala fajar dana jóg dem entraînement bu fekkoon ne sax dafa def ay jaamu yàlla ba pare door koy def waaye léeg-léeg da koy def avant ak jaamu yàlla maanaam jaamu yàlla jaralu ko dara julli jaralu ko jog julli waaye nag entraînement jaral na ko mu jóg dagg ay nelawam daw ba place sangam def ay lu bëree bëri loo xam ne coono lay doon teewul jaral na ko ko parce que loolu moo dëppoog bànneexu ba kanam mën naa dem stade wala mu dem ci mbuumbaay ma nekk fa lu yàgg ba léeg-léeg sax mu boole kook coono def ci xaalisam ba pare boole kook ay effort cëppi cëppi ba sonn léeg-léeg guddi jot mu dem ci ab néeg bu xat nekk fa lu mat ay téeméeri téeméeri nit di tëbaka dal maam gis nga yooyu lu métti la lu soof la waaye gis nga moo dëppook bànneexu bakkan yeneen yi nga xam ne moom lu baax la pourtant jafewut méttiwut méttiwul waaye dafay diis ci bakkan pour mu def ko parce que dëppwul ak bànneexu bakkan moo tax kon nee na kon euh, li sabab borom bi daa di sori tuub mooy takaalif yi nga xam ne moom la sharia santaane loolu dafa jafe ci bakkan ndax dafa juyoo ak bànneexu bakkan wasaadun an sabili shahawaat dafay gàllankoor bànneex yoonu bànneex yi te bakkan moom daa bëgg topp yoonu bànneex yi waaw nee na fa yasxulu alayha jiddan bu ko defee day dis ci bakkan bi lool pour mu def loolu لان الحق ثقيل ندخ دغ دافا ديس واو دغ ديس سوكو ديفاي نا كوم دغ دافا ديس نيت كي دافاي موجي باي دغ غوغو يالا جوخكو ليغي جيل لنن موم لا الامام ابن القيم دي ثقل عليهم الكتاب لما راوا اوامره لما راوا اوامره وتقيله فاتنا بيت بنكو اندي صح بيمي واخ اك ميوزيك مو gis nga ñoom ñi nga xam ne dañuy musique mu ne alquran dafa diis ci ñoom ba nga xamee ne dañoo gis ne alquran daf leen tënk ci ay ndigal waaw saqul alayhimul kitaab lama raw taqyiruhu bil awamiri wa nawahi ba ñu gisee ne alquran daf leen tënk ci ay ndigal ak ay tere loolu daal diis ci ñoom léegi lu def mooy ñu dal dem ci musique dal dem ci topp seen bakkan ak bànneexam bu mbaay gis nga kon dëgg dafa diis motax dañ koy mujj bayyi ba paré top lenen ba paré nak japp né lolu ñu top moy dëgg mune ne tansutu bima yuwafiqu ndax bakkan fay sawar fay sawar ci lu dëppoo ak banexam la bima maa khalifu waaye du sawar ci lu utek ak banexam mom ke lu depp ak banexam ci lay sawar te nak wa kullu bid'atin falil hawa fiha madkhal bepp bid'a rek banex amna dugu ci dugg-dugg bid'a bu nek parce que bid'a mom ñaaray tax nit topp bidaa réer topp bànneex réer topp bànneex comme ni ko al imam ibnul qayim di waxee ak imam ibnu taymiya bépp bidaa boo gis wala sax bépp baatil bépp neen boo gis xamal ne ñaar moom bokk na ci la ko la ci yóbbee nit ki mooy réer wala mu topp bànneex moo tax ne kon bépp bidaa rek bànneex am na ca madaxal li annaha rajaatun ila nadri muxtariha parce que biddaa bi dafay delluwaat ci xelaatu ki ko fent ndax ki fent bidaa ci xelaatu boppam ci la fente bidaa moom moo toog xelaat ay mbir imagine jàpp ne lii war na baax lii lii nangam mu dal di fent bidaa te yàlla subhaanahu wa taala moom ba mu bëggee ñu ci xamu ko waxuñu ne kenn ku nekk na xool lu rafet ci xelam xam nga tey ci wàllu lekk ku nekk yàlla da lay ilham li nga bëgg a lekk bu ab añ jotee waa ji sant mbay day am lu mu bëgg ab ceebu jënam mën naa am lay bëgg waa ji sant loo am na lu mu bëgg keneen am na lu mu bëgg waaye eh, gis nga bu tusubaar jotee kenn ku nekk doo am sa tusubaaru bopp ñun ñëpp ñooy bokk genn tusubaar bi mooy gis nga kon yàlla subhaanahu wa laa mënoon naa def nim ñu def ci lekk nga xam ne bu ci ku nekk yaay xool loo sentir mënoon naa def ci jaamu yàlla itam ku nekk xool noo ko bëggee rek waaye déedéet dafa yebal ab yonentu wàccee ci moom téere alquran ak sunna pour mu ñëw jàngal ñu mbir mi kon foofa lañ koy delloo waaye def ko bi daa moom dafay dellu ci xalaat moom xalaatam moom li mu fent ndax moom moo ko fent moo xalaat ay xalaatam laa ilaa nazari charia mais du xool ci gis-gisu charia déedéet du xool ci xalaatu ak charia ki yoonal mbiri déedéet wal mubtadia laa budda lahu min taalluq bi subhati dalili yansibuha a shaari waaye itam nag moom mi def bidaa faw mu aju ci benn subuha benn lënt boo xam ne moom lay askanee bidaa boobu te da koy askanee nag maanaam lënt boobu ci lay tegtaloo ci bidaa bi askanee ko sharia gis nga loolu boo ko ci li seytaane di naxee ndax kii def bidaa mëntu am dalil buy tegtale bidaa boobu ndax sharia moom dafa ñëw jàngale ba mat indi fi bidaa palaas waaye léegi nag kii def bidaa faw mu jéem a wuti ab lënt ci biir sharia bëgg koy askanee bidaam boobu waaw ngay gis koo xam ne day ñëw créer benn bidaa boo ko waxee mu ngi la julli la julli la pourtant julli sharia ko digle wax muy la tudd yàlla la tudd yàlla sharia ko digle waaye léegi sharia moo santaane julli moo santaane tudd yàlla pourtant moo ñu sant nan la ñuy jullee moo ñu sant itam nan la ñuy tuddee yàlla kon gis nga kon kooku dafay mujj moom ci xalaatu boppam lay jël ba pare nag wuti benn subaha ñëw tegtaloo ko wa yeddaxi muy woote ne anama zakarahu huwa maqdudu sharia ba pare nag mu ne moom lii mu indi nii loolu la sharia jublu fa saara hawaahu maqsuudan mu nekk la léegi bànneexam mooy mujj nekk jubluwaayu bi dalilu sharia ci dalilu sharia bi day mujj mel ni dalilu sharia bi bànneexam moom moo koy kondir moo koy wax ne ko dalil bi lii lay tegtale fii sax mi ci wooteem léegi nag bu fekkee ne ci nu mel noonu lay dund nga xam ne moom xalaati boppam lay demee ba pare wut ab subuha dëgëralee ko ko jàpp ne moom lii mu nekk lu baax la mujj mu mel ni dalilu sharia yi moom jubluwaayam la dëppool kooku fa kayfa yumkinuhul xuruj am daalika naka la mën a génnee ci loolu naka la mën a génnee ci loolu parce que da cay nekk ba pare jàpp ne lii mu nekk mooy li baax jàpp ne lii mu nekk mooy yoon wi parce que dafa bàyyi yoon ba pare jël yoonu boppam teg mu ne wadaaxee xawaa mustamsikun bi xusni maa bi bihi léegi nag moom moom di woote woo bànneexu ba kanam su ko defee dafay ngoy ca la mu gis ne moo gën a rafet ci la muy ngoy moo tax gis nga kii def bidaa dafay jàpp ne li muy def lu baax la léeg nga gis nit di def bidaa di ci coon sonn boo xam ne boole ci effort yoo xam ne nga xam ne kii li muy def ci biddaa bu ko defoon ci sunna dana bokk ci ñi gën léeg nga gis koo xam ne guddi du ko nelaw daanaka mën na jóg trois heures du matin wala deux heures sax ba fajar du nelaw nekk ci ab kurusam yor ay alkaar yoo xam ne dañ ko koo jox du bokk la yonent bi sallallahu alayhi de waaye dañ ko koo jox léeg-léeg sax mën naa am tur yu kenn xamul waaye teewul da koy da koy da koy da koy fonk guddi gi yëpp mën na cee nekk gis nga parce que loolu la jàpp ne mooy diine wa huwa ad dalilu sharian fil junub ba loolu la jàpp ne mooy dalilu sharian loolu la jàpp ne moom mooy dalilu sharian moo tax loola man na caa nekk yàgg ca lool nga gis ne effort yi muy def foofu bu ko dëppale woon ak sunna rek macha allah kenn du ko gën mais gis nga seytaane li mu bëgg ci doomu aadama mooy muy jëf te du fayu muy jëf te fayu te waxoon nañ ne la borom bi daan lu mu gën a góorgóorlu di gën a sori yàlla daa mel ni borom foo bi bi rek lu ci gën a bërile buñ ko jàppee mu gën a mu gën a nekk danger ci moom kon bidaa lu bon la lu mat a moytu la kon foofu la ñuy taxawandi li ñu cërale woon foofu la yem lépp lu jub ci wax ji borom bi moo ñu defal tawfiq ñu ngi koy ñaan mu defal ñu ko mu sell lépp lu ci dëng ñu xam ne matatik doomu aadama la ak seytaane ak bakkan ñu ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu jumte yi hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalatu walsalaamu ala asrafi alambiya walmursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baado fa assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki muharabatu shirk wal bidaa ñi ngi leen di nuyuwaat si leen ñaanal borom bi tabaraka wa taala defal leen tawfiq alhamdulilah ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli si yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw loolu alhamdulilah ñi ngi eh, gërëm ak di sant ak di ñaanal suñu cheikh al ustaas Moussa Cissé xam naa ne mi ngi sànni xeer looyee nii waane siise siise yi moom la yàlla xam day na alhamdulilah macha allah euh, dars bi am na solo lool yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala defal ci fii misaani asanaati euh, macha allah dars bi leeral na ko leer leeral bu am solo point bu nekk taxaw na si leeral ko leeral goo xamante si leeral gu leer la waane boole ko ay adilla yoo xamante si ni euh, ci alquran ak sunna yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam la ko tibbee point bu njëkk bi mu wane bidaa bon gu mu bon ak danse goo xamante si nii danse na ko mooy bàkkaar bi du yem ci rek ci ki nga xamante si nii mooy moo sos bidaa bi waaye képp koo xamante si nii jëfee na ko ila yawm al qiyamati kooku dafay am ci li nga xamante si ni mooy si bàkkaar bi waaye tamit bokk na ci li nga xamante si nii looy lu lu lu lu lu raglu la tamit lu lu tiddu la mooy kene ki nga xam ne dafay góorgóorlu ci bidaa lu muy gën a góorgóorlu ci bidaa lu muy gën a sori ci bidaa bi mu koy gën a sori borom bi tabaraka wa taala loolu nag lu raglu la ndax nit ki su fekkee ne dafay góorgóorlu ci ci loo xam ne dafa jàpp ne lii ak jaamu yàlla la lu koy jegeele borom bi tabaraka wa taala la te fekk loolu da koy sorole borom bi tabaraka wa taala loolu lu lu raglo kon loolu war na tax julit bi daw daw bidaa ak xeetu bidaa bu mu a doon bokk na ci tamit luy wane ne bidaa lu bon la lu lu la mooy kene ki nga xamante si nii euh, te loolu la sakk ne euh, dara gënu ko métti si ab julit euh, boo bu bu xam loolu mu xam ne ëllëg yow dañ lay dàq ci la nga xamante si nii mooy awdu nabi sallallahu alayhi wa sallam doo am cër ci rammug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jurit ba xam loolu bu ñu wax loolu xam nga ne loolu lu diis la loo xamante si ni lu lu metti la te loolu lépp li koy waral mooy que ne bon goo xamante si ni bidaa bon na si ak nuur ci li nga xamante si ni mooy bidaa bokk na ci tamit point bu mu taxaw wane ne bidaa tamit lu bor a bon la mooy eh, yunsau minhu tawfiq mooy borom bidaa bi dañuy rocc si moom li nga xamante ni mooy ab tawfiq bàyyee ko li nga xamante si ni mooy mooy boppam ñetteel bi eh, wala mooy ñeenteel bi bokk na ci li nga xamante ni bidaa day wane ne bidaa lu bon a la mooy ki nga xamante si ni dafay dafay euh, maanaam ki nga xamante ni dafa dafa nekk si li nga xamante si ni mooy bidaa kooku moom dañ koy tëjal li nga xamante si ni mooy buntu tuub maanaam du mën a tuub parce que dafa jàpp ne la mu nekk loolu ak jaamu yàlla la dafay jàpp ne loolu ak njub la moo tax ñuy wax ne fa baabu tawbati anhu masdudun maanaam buntu tuub moom dañ ko koy tëjal ndax dafa jàpp ne loolu ak njub ak baax la ak jaamu borom bi tabaraka wa taala kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaanal suñu seex al oustaz Moussa Cissé borom bi tabaraka wa taala fay ko yiw ci darsu bu am solo bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq ñu am dégg ak topp lépp loo xamante si ni dégg nañ ko ñu mën koo jëriñoo hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa